rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli iqwat al iman wal aqida assalaamu wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di wax baat bi ñu yàlla boole nun ñëpp nga xam ne jàmm ak yërmandeeg barke moom la ëmb ci biiram maa ngi leen koy jox mboolem ñi nga xam ne ñooy mbokki jullit yépp yàlla na bu mu dañ di dooteeku ci yéen muy baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bi nu santete yàlla mi ñu mayeti kattan ban mën a waxatee ci waxukaay gi julleete ci ki gën ñépp di bàyyi Fatima ak Zeynab mu Umu Kalsum bàyyi Roqaya ak ibrahima qaasim ak abdullahi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa mi nga xam ne léppam da koo jëloon diwiran juróom benn fukki at ak mu dund yépp jël na ko ngir bëggoon tey lislaam yegsi fii mu yegsi kon kooku duñu dañ di julli tey sëlmal ci moom sallallahu alayhi wa ndax li tax toujours ñuy war di julli ci moom rek mooy li ñu ci yàlla wax mbokk mu ne tey foo toll jullit war nay def fu mu tollu di julli ci yonent ndax yonent bi képp ku julli ci moom yàlla sol ko ruux ne ko diw doomi diw ak diw julli na ci yow bu dee benn yoon nga ko def yàlla dalay dolli fukk bu dee fukki yoon yàlla julli ci yow téeméer bu dee téeméer yàlla julli ci yow ku julli ci yonent bi junni nag sa yaram araamal na safara kon mbokk yi ñoo ngi julli tey sëlmal ci yonent bi di nuyu ñëpp di ziyaari ñëpp euh, du ñu sans plus tarder ñu dem ci li nga xam ne tey mooy bakkan la ñu waxtaanee mbokk yi yàlla am na lum ñu wax ci alquraanul karim qad aflaha man zakkaaha wa qad qaaba man dassaaha yàlla suñu borom mooy wax ak ci alquraanul karim nee na qad aflaha texe na texe na am na teraanga ëllëg bakkan boo xam ne sellal na boppam topp na yàlla tey jaamu yàlla mooy qad aflaxa man zakkaha waaye perte na sooy na ki nga bakkan bi nga xam ne borom da koo boyal mu jëm ci lépp loo xam ni yàlla gërëmu ko wa qad xaaba man dassaaha bépp bakkan boo xam ne mi ngi jëm ci lu yàlla gërëmul bakkan boobu bakkan bu perte la te nag mbokk yi yàlla ne wa man yuti illaa wa rasula faqad faaza fawzan azima képp koo xam ni jël nga sa bakkan jël sa cër yëpp joyanti ko jëme ko ci topp yàlla waaye yemoo ci topp yàlla kim la sant nga roy ko di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga roy ko ci jikkoom yu rafet ya mu amoon yàlla nee na kooku faqad faaza fawzan azima yàlla ne kooku texe texe goo xam ne texe gu màgg la te mbokk yi kenn ku ne ci ñun texe rekk la bëgg moo tax yàlla di waxaat ak ñun ci alquran ne qad aflaha almuminuun yàlla nee na ñi nga xam ne gëm nañ ko gëm ko nag mooy lan du ne rekk gëm naa yàlla nga yemale ko ci sa làmmiñ wi ne man di gëm naa yàlla wala gëm naa yonent bi déedéet da ngay gëm yàlla te gëm li la sant te koy def xam nga gëm yàlla yomb na foo toll ne gëm naa yàlla loolu yomb na waaye est-ce que li la yàlla sant ndax yaa ngi koy def ci sa dund li la yàlla sant nag weesuwul lim la wax ci alquran ne la maa ngi lay xamal ne ki ma la indil mu doon sa référence jël ko taroy ko ci jikko yi mu yor ngir nga mën a wax ne nag maa ngi koy jëfee li ma wax sama làmmiñ ci gëm naa yàlla laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana yàlla nee na yëg leen ne man def naa ci yonent bi ay jikko ay vertu ay valeur yoo xam ne képp koo xam ne roy nga ko moom sallallahu alayhi wa sallam ëllëg danga texe moo tax wa man yuti illaha wa rasula faulaika maa alladina anxama allahu min annabiyina walsiddiqina walshuhadaai walsalihina wa xasuna ulaika rafiqa képp ku topp yàlla topp yonent bi ci toppin woo xam ne toppin gu nekk dëgg la du na rek ne damaa bëgg yonent bi fuñ ko waxee nga nga fortasu fu ñu waxee yonent bi nga daanu te yonent bi benn jikkoom yoroo ko yow doo yërëme ku la tooñ nga fayu yow doo jëllale ku la tooñ rek jëflante nga ak moom yow amoo ñeewant ci benn doomu aadama yow tabe woo yaa gën a nay ku yàlla bind loo am da koy yemale ci sa bopp doo joxe ñam te yonent bi daana joxe ñam ba këram ñaar ñoo fa daan nekk tàndarma ak ndox yow nag man ngay lekk sa kër ba mu doy li des nga denc ci frigo bi soo demee ba mu yàq nga sànni kon royo yonent bi ko roy yonent bi da ngay yor jukko yërmande tabe koo romb sax yaa koy nuyu ndax sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay jukkoom ku mu romb moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo njëkk nuyu moo tax doone rek man gëm naa yonent bi nii ci ay wax ndax wa laysa naf'un ala hubbin bila amalin kon wattaabi an sunnata almuxtaari tëxtanimi cheikhul xaaji malik si radiallahu taala anhu nee na wa laysa nafun ala xubbin bila amalin bëgg naa diw rek te yow jéemoo mel ni comme diw kon doo gaaw a bëgg naa diw te jéemoo mel ni comme diw kon doo gaaw a niin soo bëggee gaaw a niin soo bëggee diw dangay ngay fexe jonjog diw te fexe mel ni comme diw kon su fekkee dañ ne man damaa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jéemoo mel ni comme yonent bi nee na waxi kese la kon li war mooy wat taabi an sunnatal muxtaari jéemal top sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo wax ne man ahabba sunnati faqad ahabbani te wa man ahabbani kaana maai fi ljanna yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na man ahabba sunnati képp koo xam ne bëgg nga sama sunna e mbokk yi na ngeen ko seedal ne kooku dëgg-dëgg ku ma bëgg la ku bëgg sama sunna rek ku ma bëgg la te yonent bi nee na képp koo xam ne bëgg nga ma wa man ahabbanii kaana maai ay janna ku ma bëgg ku mënti doon ak lu mbëggeel ga doye di doye di nanga nga yëg ne cofeel googu maag ñooy bokk dëkk biir aljanna kon bakkan bi nga xam ne moom def ne man dama bëgg yàlla tabaarakallaahu bëgg yonent bi na ko matérialiser ngir li yàlla wax ne qad aflaha man zakkaaha loola mën a nekk ca bakkan booba yaa ayatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbik raadiyatan mardiyatan faddaqu lii fi ibaadi waddaqu lii jannati yàlla nee na ñi nga xam ne seen bakkan laabal nañ ko sellal nañ ko bokkut ak nag nafsu bale nafsul amaaratu bi suu an nafsu al amaaratu bi su bakkan bi nga xam ne da lay yóbbu ci nga wax ngay jëf lu bon moom daal bànneex bu mu gis rek ca la lay wommat nga ne lii moo ma dàqal ci àdduna nga topp loola sa at yay dem sa ad yay dem ba dee ñëw nga perte sa dund googante kon waqad xaaba man des saa kon bakkan boobu perte nag dundam moo tax yàlla ne ki sellal bakkanam laabal ko topp yàlla ñi nga xam ne nee nañu yàlla mooy sunu yàlla inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu tegu nag ci istiqaama istiqaama nag mbokk yi lu jafe la jub jubin woo xam ne doo gis doo wax lu dul yàlla la mu gërëm ak la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm moo tax imam bu sayru ne bakkan dañ ko yar bakkan soo ko boyelee ci rek muy jëm ci lu ko neex day mel ni xale buy nàmp wan nafsu ka tifli in tumilhu shabba ala xubbi radaa'i wa in taftimhu yan fatimi bakkan kenn du ko yóbbu ci li ko neex danga koy wàññi wuuteeg moom ci wàllu lay seytaane bëgg la bakkan bëgg la bànneex bëgg nga bañ ka topp te topp la nga xam ne moom la suñu borom digle moo tax yàlla ne kon ñi nga xam ne gëm nañu ma te matérialiser seen gëm googu ci ay jëf ay geste Sénégal nag booy seet tey gëm naa yàlla yomb na fi lool bëgg naa yàlla la lii alquran li ñu faral di wax da ngay gis koo xam ne daf naan la akamaa gëm yàlla akamaa bëgg yàlla fu ñu tuddee yonent bi nga gis mu daanu fu ñu tuddee yonent bi nga gis mu fàttu su ñu ne ak bëgg yonent bi te fekk ne am na waa ji dend ak yow joo xam ne ni yow moom rek ngay bañ a gis nga gis ko ak gis sa butit ñoo yem mbokk yi kooku su ne bëgg na yàlla bëgg na yonent bi loolu du doon luy nokk dëgg ndax soo bëggee yàlla li yàlla bind te indi ko ci kaw suuf loolee da nga cay gis yàlla te am cofel ca moom kon yàlla dafa bëgg jaam boo xam ne day sellal ak dundam noo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ñëpp perte nañu mboolem lu yàlla bind perte na ba mooy ñi nga xam ne dañoo xam ñi xam ñi gëstu xam-xam te xam yàlla nee na ñi xam yàlla sax nag nee na ñooñu perte nañu ba mooy ñi nga xam ne dañuy jëfee seen xam-xam ah qaala laahu ba minal al eh, eh, eh, alif lam mim zalika al kitab ba min al jannati wa naas bëri na dañu koy wax mais est-ce que xam boobu ñuy wax ndax ñu ngi koy jëfee moo tax yàlla ne yonent bi ne ñi nga xam ne am nañu xam-xam perte nañu bam mooy ñuy jëfee mu ne ñuy jëfee sax nag ñoom it perte nañu ah problème mi ngi bëgg a am mu ne ba mooy ñiy sellal mu ne ñiy sellal lit ñi ngi ci danger ndax ñiy sellal seytaane soxlawul koo xam ne saa boo jógee dem ca fi ñuy defee lu bon wala fu ñu waxee lu bon kooku seytaane am na ko ba noppi seytaane ki mu soxla mooy koo xam ne bu jógee di jëm ca jàkka la mooy dem ca jàkka da koy def te yàlla tax bu jógee di jëm ca daayira ba na muy dem ca daayira ba da koo def parce que da koo bëgg bu jógee di dem ca gàmmu ga na muy demee ca gàmmu ga dafay dem parce que dafa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam man dew ma fa parce que diwa tax du ma julli Sénégal tey da ngay gis koo xam ne nii kër gi fees na comme kër gi fees na ñëpp ngi julli mën a allahu akbar ànd ak ñëpp di julli xam nga ne da ngay sa bopp julli koo xam ne soo weetee julli so weetee li koo julli te julli googu mu doon loo xam ne ba nga koy def sa xol bi dindi nga ci lépp luy àdduna dëgmal yàlla te yàlla rek tax kooku mooy ki nga xam ne mooy jaamu yàlla piir kon nag nañ leen fexe sellal suñu bakkan yi nañ leen fexe laabal suñu bakkani ci lan laabal suñu xol yi ci di tudd yàlla fu ñu toll alxaaji abdul aziz dafa waxoon ci dundam ci xasida boo xam ne mu ne zikrul ilahi lil qulubi quutu in lam taash bihi fahiya tamuutu kon ahyu qulubakum bi zikrillah fi kulli ay aya ibadallah kon ñun te yàlla waxaat ko ci alquran ne ala bi zikrillahi tadmainul qulub suñu xol yi suñu bakkan yi nañ leen koy sellalee ci tudd yàlla fu ñu toll mbokk yi àdduna neex na neexaay goo xam ne boo ko toppee boyal sa bakkan da nga dem ba sa bakkan bi day nàmm li imam Busayr waxoon ne ah mbokk yi nee na kan moo dimbale sama bakkan bu màmm bii ci mbewtem gi mu bew comme ni ñuy delloo si waatee màmm ci jàpp ak buum gi nga xam ne moom lañ ko laxaabee ndax sama bakkan màmm na kon nag bakkan bu màmm moo raw fas wu màmm ndax dootul ti yàlla day gëlëm loolu lu bon rek la li digal kon mooy nafsul amaratu bi suu nafsul lawaama bi moom dana lay yedd ay Babacar bu ko def de dem ca soirée ba de soirée boo fa demee da nga da da dana la yàqal say nelaw boo ñëwee journée bi nga war a xëy nekk ci sa yitte nga mujje di nelaw ndax guddi gi nelawoo te nag mbokk yi nelaw du du du la lebal de foo ko jëlee da nga ko fay amul kenn nelaw ñëpp a koy def kenn moo nelaw ci kaw suuf mooy suñu borom moom du nelaw du dajjantiku du gëmentu ndax bu ko defoon rek addina tukki allahu laa ilaha illa huwa alxayyul qayyum laa taaxuzuhu sinatun wala nawmun yàlla du gëmmentu du nelaw du dajjantiku dajjantiku mooy ngay toog ba mu yàgg ngay mbëkk am na ñoo xam ne seen dund gi fu ñu toog ci biir nit ñi te mbokk yi nelaw ci biir nit wóorul la ah. nañ ko moytu nelaw ci biiri nit civilisé wul ndax doo xam luy xew ku xas bay nelaw xamatoo luy xew de moo tax nelaw ci biir nit wóorul lu xew lu ne mën ngaa tiit sax jóg waaw parce que léegi-léeg da ngay da nga xam ne am na lu xew waaye da ko jéem a négocier rek mais xam nga ne li fi xew yow ah li fi xew yow moo tax yooyu nañ koy moytu nelaw ci biir mbooloo woorul te nelaw mën naa gàtt te xóot waaw mën naa gàtt xóot te nelaw boo xasee ba nelaw deegu ndaw la yëgatoo sa bopp yëgatoo sa bopp moo tax fak ñuy moytu tabaarakallaahu di leb bori nelaw koo gis léeg-léeg bëccëg tabaarakallaahu jaami yàlla yi toog mu war a am farata gu mu def mu toog ca biir nit ñi nan nii rek di mbëkk rek mbokk yi loolu loolu doxul loolu doxul nit day nelaw nit journée bi minimum minimum war naa am benn quatre heures de temps cinq heures de temps boo xam ne da koy jox ay bëtam gëm mu noppal cerveau bi loolu mooy li nga xam ne mooy melokaanu doomu aadama soo bëggee su julli jotee nga julli waxtu ah foog ngay nelaw li indi problème mu julli fajar ñu ci bëri mënuñu ko mooy parce que dañuy toog ba deux heures trois heures ngay caayin teg nog bi fii ñuy toog ngeen di waxtaan wala ngeen nekk ci boy di waxtaan wala fu nga tugg ba trois heures quatre heures du nga bëgg tëdd bëgg a yeewu cinq heures loolu day day day day day am jafe-jafe même soo yeewoon di julli doo mën a teewlu parce que say bët mën naa yeew mais sa xel mi du yeew te julli da ngay teewlu xel mi xol bi ak lépp rek ngay teewlu kon nag mbokk yi nañ leen góorgóorlu ci defaraat suñu bopp ci yaraat suñu bopp ci xoolaat suñu melokaan ci suñu société sunu bëggee ñu vivre ak symbiose suñu bëggee ñu vivre ak dundin boo xam ne ndax yàlla moom du wàcc di ñu soppil de gis nga société bi fi mu toll yàlla du wàcc yàlla wax ci ne inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla du ñu soppil suñu société bi du ñu changel ñun ñi ko dëkkee te yàlla jox ñu xel ndax moom nee na inna hadaynaahu sabilan imma shakiran wa imma kafura yàlla nee na maa leen jox xel xel mi ma leen jox bu leen neexee ngeen topp yàlla topp man yàlla te ngeen xam ne mooy seen njariñ ah bu la neexee nag nga weddi xalab topp ci la fu soirée tëggee nga dem tabaa fu fuural tëggee nga dem fu tànn biir tëggee nga dem waaye ay boo faatoo soo faatoo mbokk yi ba dugg ci bàmmeel da nga réccu lépp loo doon def lu yàlla gërëmul ci kaw suuf kon mbokk yi nañ leen gën a góorgóorlu ci defar suñu bopp ci yar suñu bopp ci xam lu ñuy wax ci xam lu ñuy def te xam ne société bi léegi dara wóorutu ci léegi koy wax ak mën na la enregistrer koy wax ak mën na la filmer te léeg-léeg ngay wax loo xam ne nii kan koy wax ci moom nekku fi ñu defal ko ñu wax ko ko ne ko diw gis nga preuve baa ngi nii su ko defee seen diggante yàqu te diw moomu am na fu la tegoon kon nañ leen gën a góorgóorlu yal na yàlla sàmm ñëpp yal na yàlla aar ñëpp yàlla na yàlla suturaal ñëpp yàlla na yàlla defaralun suñu dund gi ba ëllëg nu am ngërëmam moom suñu boroom rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqaasirina rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqaasirina rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim bi xormati allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalina walhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh